est-ce que renégociation bi également wa Mauritanie dinañ ci ànd ndax euh, bu fekkente ne euh, dañuy renégocier euh, mu nek lo xamantene ni day du jëm ci sen intérêt wala duñ ci am avantage bu bari est-ce que dinañu accepter renégocier yoyu les contrats. xam nga dafa am promesse yoo xam ne boo ko xasee wax wala mu nekk ay engagement yoo ko sa wax ba ngeen ci opposition boo nekkee au pouvoir day wuti. tey bu ñuy wax renégocier des contrats mooy on casse les contrats mm-hmm. Mm-hmm. c'est des contrats béton en bonne et due forme yoo xam ne buñ ñu koy négocier état bu nekk ay pôle d'avocat ngay am dañ yàgg ne contrat boo xam ne monsieur Sarr comme puy la rek ñëw rek waxtaan ak moom rek signé contrat wala benn contrat CDI boo xam ne ngay yow signé yóbbu benn partie sa kër benn bi société bi benn bi déedéet on a vu le cas de Bictogo bi ñuy kase contrat Bictogo ak Sénégal Sénégal dafa mujj fay ay dommages ak ay préjudice c'est des milliards la ñu contrat boo xës a toj exemple joueur un footballeur international ki négocie un contrat mais boo demee ba contrat fin de contrat am jeexul mais su fekkee beneen équipe da koo soxla xool nga négociation yi ñaata mois lay durer xool nga charge yi nga ne moom mooy tegu ci contrat yi ak indemnisation bi am donc koy xoolee comme contrat wu joueur professionnel bu ñuy kase rek te contrat bi pour parler yu métti ci ne tribunal et ils avaient pas dit que les contrats miniers les contrat ressources naturelles ak minier. contrat de pêche contrat de ressources naturelles ils avaient même dit les licences de pêche yo xamné de 1960 à nos jours sénégalais ñepp ñëpp a ngi koy pouvoir bu fi ñëw da ngay joxe promesse mais boo c'est ba ci biir gis c'est les contrats béton yo xamné ne toj. mais les problème lay contrat yi union européenne moo koy signé am na contrat am ne c' est pas des états français c' est des contrats am ne c' est l' ensemble des unions européennes ñu may envoyé seen i avocats ak seen i négociateurs dernier contrat licence de pêche xam ne moom lañ euh, parlement européen bi bañ ne France Portugal ak Espagne am nañu quota boo xam ne dañ koy napp ci géejub Sénégal mais contrat yooyu tey jii biñ ko signé daaw jéeg la woon ak ren mais préjudice yi si am mais dañoo mujj bàyyi noonu. loolu dafa bokk ci benn faiblesse boo xam ne suñu autorités yi dañ koo am à l'endroit de euh, des des des autres pays donc ils ont intérêt à revoir trop bien très bien même balaa ñuy dugg ci exécution contrat yooyu et ils ont l'obligation et le devoir aussi de casser le con ces contrats parce que promesse la woon bu ñu ko mënta casser aussi ñu génnee ko bokk na ci aussi leeral Sénégal yi contrat yi na la demee man gëm naa ne tey mën na nekk. mais nañu préparer ay domage ak ay intérêts yoo xam ne boo dajee contrat di nga ko delloowaat vous avez tantôt dit que la Mauritanie et le Sénégal contrat bi nga xam ne signé nañu ko avec le Sénégal mais président Macky Sall gouvernement balaa ñu doon am accord de principe concernant gaz bi nga xam ne moo seq Sénégal ak Mauritanie mais ay weer la woon négociation bu méttee méttee méttee méttee bañ naan sax finalement cinquante cinquante lañ lañ ko mujj lañ ko mujj signé. am ci ay yo xamantene ne du ko mën a wax ci kaw ay réalité yo xamné wouté nak li nga xamné que la Sénégal yi di waxtané ki nga xamné ay at la durée pour négocier ben contrat de part de de partage du gaz nga xey suba il y koy tojat mais prépare-toi à beaucoup de choses man damay japp né sur le plan des procédures administratives et judiciaires c'est faisable mais sur le plan de l'exécution ce sera très difficile pour eux. Et ils auront l'obligation de la faire. Promesse cela Mais comme nous lool pour nous il est difficile. Et Mauritanie aussi, ba nous signé un contrat, il paré Mauritanie commence à dire gaz. Mm-hmm. Renégocier les contrats, moy aussi, pousser à la Mauritanie de renégocier aussi mon mythe. Nous un partenaire. Est-ce que Mauritanie dina est-ce que Mauritanie ko ce sera compliqué su fekkee aussi est-ce que Sénégal dina pare aussi. Mm-hmm. pour faire indemnité yi nga xamante ne moom la. Mauritanie signé ak ay accords yo xamantene ne jotawul ak Sénégal dara. Mhm. donc y' a beaucoup de paramètres yo xamantene avant ñu ci dugg nañ ko gën a su fekkee gis nañu aussi c'est pas la mënut a nekk wax ak sénégalais une un langage de vérité mais sera c'est un terrain glissant. alors balaa ñuy dem service commercial euh, pour boucler première partie bi moom mi ma bàyyi la nga nga nga euh, bon Fatou je pense que gars déjà wax nañu lépp benn euh, xalaat bu ndaw rek laa ci am. Mhm.